wax mais sénégalais yi xëyoon tàgge la waaw kàddu yooyu ba nga ko yëgee dara sama benn doom dem ba ni ma yaay ñu ngi nii de qu'est-ce que j'en fais man ko bàyyi leen ay xale lañu parce que comme ay xale lañu aussi duma leen jàpp ñu di leen tëj di yàq seen àddina pour la jaru ko mm-hmm. man leen yàlla reyul kenn ci vingt rey la ci dix mm-hmm. buñ ma neen ba ñang may tàgge ma leen tàgge leen seen yaay mm-hmm. wala ngeen tàgge seen jabar ba seen doom mm-hmm. ba seen maam ba seen papa mm-hmm. man leen man leen fi ngeen dal baaxul sama benn doom xool xool ma ba yàgg ni ma ay waay xale yi maa leen yërëm man ko waaw fin d'année bi ngeen ma boole woon calcul ba moo leen seen calcul faussé na <laughs> mun na ngeen woo seen yaay ngeen tàgge ko man ko na leen bu leen def dara bàyyi leen ay xale lañu boo leen jàppee tëj leen yàq seen àddina lu muy jëriñ du ma jëriñ tëggu ci vingt rey la ci dix ndax nit ñuy wax yeeg bind ak maas ak yëpp dara nag mhm. fi mu teg ni fala rek fala kenn mënu ci dara doo ko weesu mhm. waaw kon nag loolu rek la mhm. man dama leen bàyyi gàlla rek dama leen bàyyi yàlla amul problème bàyyi leen nag yàlla mais aussi di lancer ban message bi nga xamante ne aussi ñooy presse bi nga xamante ne ñooy faral di def genre jëf yooyu presse bi daal dama bëgg ku ci waxati dara na la leer bala ngay defati bala ngay véhiculer ci benn message da nga góorgóorlu ba nga ba leer la nañ ni lii am na Mhm. parce que xam nga man li mos na ma dal une télé. Mhm. toog naa am ku ma woo depuis Italie. Mhm. di jooy jooy metti man ko lan la mun ma dañ ma wax léegi artiste diw. moo fi jóge te kooku boobu mu ngi Italie. ni ma dama buggoon ba def émission. nga nga nga nga nga waxaale ko. ah man tam ma daal di def émission daal di ni ah. am na de ku ma woo ca Italie nee na. nangam la ñu wax man nag wóoruma. dégg nga fi ma wax ni man leen wóoruma. ndax am na wala amul kooku ma woon nag woon na ma tamit laaj naa ko turam ban na ma wax turam mhm. nee ma daal loolu la dégg waaw mayit kon nag noonu la ngeen ko déggee noonu bu amee xam leen ne am na bu amul ngeen xam ne amul mhm. jeex na kon xam na man trompé na ma teg effectivement amul mhm. loolu amul mais am na ñoo xam ne loolu mais ku ci demati daal bay def dara góorgóorlu ba man bu loolu sa laa jógee dama ci yeewu dama ci jógee yow kenn dootuma woo téléphone rek ni ma nangam. Mhm. ma ma jàpp loolu. Mhm. ba tax nag may tam may li ma dal ma bañ mu dal keneen ak keneen ba tax na ñu la waxee dara. Mhm. vérifier ko ba mu leer nga doog ko génnee mais wax loo xam ne wóoru la. wala xool nit rek daal di tabax dara teg ci kawam. wala inventer nit loolu baaxul ci presse. vraiment. waaw loolu moom maa ngi leen di wax daal ku ci wax ci dara uh-huh. na nga ko seet vérifier ko ba mu wóor la ni rek uh-huh. vraiment lii ngay bëgg wax jàll muy jàlle daal am uh-huh. waaw macha allah information day leer ah. di nuyu bu baax a baax suma frère boobu moo du Ndiaye depuis Angleterre mm-hmm. ndeysaan démb rek mi ngi may woo di ànd ak sénégalais naqar bi nga xamante ne ñu ngi koy dund ci inondation bi di ñaanal rek ñi nga xamante ne ñooy euh, kilifa yi nekk ci nguur gi ñu delluwaat jàppale ñi nga xamante ne aussi ñooy sénégalais ndax sonn nañ bu baax a baax a baax bu ñu jooyee amul fenn fu ñu mën a jooyee fu ci ñoom mm-hmm. tey nag dafa am euh, loo xamante ne xëy na waxuma la ko woon sax waaye dama bëgg mu doon témoignage ñuy waxtaanee ko ci ki nga xamante ne moo di suñu papa sa borom kër loo ñu mën a wax ci moom. kooku yàlla na ko ah, mm-hmm. ba mu di la toggal. reer mm-hmm. géej booy toog mu leen di ba roof. Mm-hmm. di la waasal jën. Uh-huh. daf naa ma tëj buntu bi. ma tëj buntu bi mu waas ku sone wala dara mu jóg dem. ba kooku jëm njawaat mu ñëw waas jën gi dana dëbb roof dana roof. léeg-léeg mu ne ma bàyyi ma togg reer bàyyi ma togg daf koy def daf ko topp ba topp ko ba ci doomam doomam bi sëy fii day jékki-jékki ni ko tey maa lay togg reer ndeysaan bu ko defee bu mag gi ne ko sama may togg reer mun ko ah loolu de sama papa mun ko oui oui oui je la cuisine aujourd'hui je parce que dafa ko bëggoon mhm. dafay papa bu baax mhm. papa pour la woon fu bëgg njaboot mhm. waaw yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm mës nañoo toog seetaan ci plateau télé nga wax ñu à l'âge de 18 ans dugg ci moom 18 ans la xooloo ci am am xooloo ci lenn boobu amul boobu nit moo tax ñu naan euh, ku amul dara kenn du ko may man leen ah kay. Mm-hmm. bu see mbëggee la nga fa. Mm-hmm. ki jigéen ki ki bëggee. day muñ xanaa xam nga ki nga bëgg rek nga may muñ ne jigéen bu fi sonal góor rek delloo sa xel ni kii am mbëggeelam des na. jigéen ju góor mm-hmm. nga sëy góor sonal ko góor yow ma di leen jox boobu conseil jigéen bu leen sonal ci sëy xam leen ni mbëggeel ba des na maa wax li ki la bëgg da yërëm da lay muñal da lay nëbbal da lay làqal du bëgg ko la xamal dara man dama daan tàngal café suñu kër muur ko yóbbul ko sama café ndékki yóbbul ko mu naan mhm. booba dara kon xam nga ni booba dara new fi mhm. booba dara new fi mais boobu bëgg naa ko bëgg na ma mhm. mu sañse rek ñu dem àndandoo baal nit ñu xool muy way may baal neex na ma boobu loolu la woon mais léegi da nga gis kenn ñemewul sax kenn ñemewul sax di chômer dem naa da wuti jabar ñeme woo ko am nga fitam duñ la faale loolu ban euh, man dama koy faral di wax ah dañoo tollu Sénégal joo xamante ne xale jigéen ñi dañuy bëgg dugg ci sëy ci bu ñuy dugg dañuy fekk lépp sotti. waaw loolu la boo amul dara soxlawuñ la. Mhm. ba sëy sëy ndax loolu yokkul seeti rek. ndax loolu yokkul caaxaan geeg foog ci loolu dañuy seeti caaxaan gi la dañuy seeti rek sëyuñu. Mhm. kii sëy dañ koy seey. Mhm. mais ñoom dañuy seeti bu neexee ñu togg naqa dañu dem gisoo léegi dañ naan la mën appartement nangootuñu dëkk ak yaay nangootuñu dëkk ak goro yow trois mois rek trois mois nag moo tax sëy yi tas parce que Euh, sëyu xale ak mag ñi ànd ci parce que di nga boo ñëgee mu ñëg mm-hmm. nga xëcc mu xëcc day dagg mm-hmm. mais bu ñu waxtaanee ma xam ne loolu am na ma gis loolu ma la ee eh, gis naa la sa jëkkër waxoo moom naa ngam du fulla mm-hmm. jigéen du mbara yoog jëkkëram du tongoog jëkkëram fexeel nga fexe ba wax ak di fexe ba wax ak sa jëkkër léeg-léeg tamit yaayu ko góor ki leen nga waxoon ni ko ee eh, kenn du toog ak sa jabar temps yëpp ndey déet wax am na li la naqadi wax nga ko jeex na mais nag nga gis kooku tamit changé ngeen wax mais ngeen bokk yéen ñaari kër sa portable portable la. Mhm. nga xëcc mu xëcc bu yàggee il en a marre toi si tu en as ngeen di def da di tas. mooy mhm. sëy yu bare yii di tas mais bu fekkonte ne xale bu ci sëy ànd nga ak mag nekk nga ak mag am na lu bare loo xam ne boo koy def bu la yeddee daa ko dégg di nga xam ne kii wax na ma dëgg. Mhm. loolu la mais nag bu ngeen wéetee nag euh, mooy loolu de. wéetaay bu yàgg bii trois mois rek moom mooy musiba bi. waaw sëy nag mag ngi ci téye mu mën a dem waaw. jamono jii naxante bi dafa bëri maman ba nit ñi sax euh, pour góor xam jigéen ji ko bëgg yombatul. ah naka la ah, góor ah. mën a xamee jigéen ji ko bëgg. ki lay ki lay ki nga amoo dara. Mhm. amal sax denc ko ne ko dara. Mhm. da nga gis bu dee am na dana la jox dana ko séddoon yow. Mhm. bu amee dara dana la xelal pourtant boo defoon nangam nangam du ñàkk nga nangam nangam. waaw kookoo ngi lay wan yoon pour na am jom. waaye ah booy man aw ma mu la ah boo amul boo amul boo amul am na ba ko fa. takk fa na la mbaja banque ba may wax ak yéen jigéen bu fi sonal góor mbaa sa jëkkër hmm. nga lëjal ko ci laaj may ma may ma jox ma jox ma nangam xamal ni mbëggeel ga des na maa wax li hmm. loolu moom maa ko wax hmm. léeg-léeg nga am bay tuur sa jabar toog waroo nga war koo may mayu ko mu am ngor ndax da laa bëgg du la laaj dara du la laaj dara mais daf la bëgg ndax day sëy te yàlla rek tax am na man gis naa fi koo xam ne mi ngi <laughs> ah, dafay sëy koo xam daf ni ku ñëw mu Mm-hmm. ki mu mujj sëyal kooku dugal ko ci kër gu amaana macha allah mbindaan yeeg boog yëpp. Mm-hmm. or bu wetu or yi yëpp bi mu ko joxee bi mu dem ba sëy dafa jël bu wetu or teg teg waaj. Mm-hmm. teg or bu génn dee jot day solu mu jox ko li muy takk mu takk chauffeur la ma koy yóbbu. oto bu ñu doon wax may nag ko oto bu du ko dawal chauffeur bi moo ko yóbbu xew ma day dem toog par exemple daf koy jox 10 mbaa 20 ndaw ndawtal bu heure bi jotee chauffeur bi ñu ko nii. mu jóg mu dugal ci oto mu ñëw mu tekk oil yooyu yëpp denc loolu sëy la loolu neex na man balaa caa may sombi di naan di ko jëri ngay naan di naan di ree may ree mm-hmm. waaye rek dugal ma ci appartement eh, macha allah ku dugg ni eskay rek mm-hmm. ñu naan oore oore te waaw ne dama koy dégg ah. xanaa dem dikk nga tekk denc mm-hmm. ah amul waxtaan amul foo amul ree uh-huh. mi ngi ci kaw ci ordinateur am yaa ngi ci suuf. Mhm. jàkkaarloog télé bi. Mhm. ma tey mayu ñu permettre ñu sax jànq bi toog ci sa a télé. Mhm. alors là kooku mooy prison bi kuy dund. prison la loolu. prison la waaw man de ñaanuma yàlla loolu sama doom dal ci mbaa keneen dal ci. ma ko yàlla waaw. ñaanu ma ko yàlla lool. ñaanu mhm. ñaanuñu ko yàlla macha allah loolu tamit euh, di kàddu yu am solo loo xamante ni tamit mënuñu ko woon ñàkk duggeek moom ngir jàngale rek ndax ni ma koy waxee saa su ne euh, day jàngale day joxe li nga xamante ni tey moo di ay leçon ci ñi nga xamante ni tey war nañ kee mën a jàng ngir mën a doxal bu baax a baax seeni àdduna mais tey euh, yaakaar naa ni tey def nga dund nga ak ñi nga xamante ni tey ñoo di papa ak yaay témoignage bi nga ma mën a defaral ci ñoom rek tey loo xamante ne saa su ne rek dina tooy sa xol lan lay doon sama papa ak sama yaay mhm. sama yaay fu ma déggee ma dégg saaru inaa anzal naaw mhm. xel ma di ko jàngal ba mu mën ko léegi lu mu julli rek inaa anzal naaw ku allahu lay def ku mhm. ma dégg nga jàng inaa anzal naaw rek sama yaay sama xel ci sama yaay lay daal di dem waaw ndeysaan waaw sama yaay Awa Bay yaay ju baax bëgg njaboot jullite ku xamul yaayam yaay ju xamul yaayam vraiment moo tax macha allah yal ko yàlla fal cat yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam kay moolum géej ku baax mm-hmm. waaw ku mm-hmm. baax macha allah mm-hmm. waaw su ma waxee nit nga xam dañ naa ma yow sa yaay nga nuroog da nga nuroog sa yaay da nga nuroog sa yaay waaw ndeysaan waaw même sama sët benn bi dafa naa ma je reconnais grand-mère vous vous ressemblez man ka yaay ju baax la am te rafetoon ko may dafa rafetoon macha allah trop sax macha allah mhm. waaw ndeysaan mhm. loolu nga xamante ne dund nga ko ci moom à chaque fois boo ko mhm. diggee rek mu doon fu ma ko déggee rek ci sama yaay la sama xel di dem waaw ndeysaan waaw waaw dëgg la moom. macha allah mbokk loolu tamit euh, di kàddu yoo xamante ne rek euh, kàddu mbégte la tamit parce que jàpp naa ne am na loo xamante ne heure boo ko déggee mu tooy sa xol rek. Mhm. ci bànneex tamit loolu euh, doole sant la jaakaar naa maman sant la sant la. Mhm. sant la sama yaay dund na cent et quelque année. macha allah sant yàlla yàlla nga ko doon ci at yi yàlla nga ko ko nuru ma ne naa ko nuru topp ko ba jël li mu ba am li mu am. Mhm. ci kàttanu yàlla ak mbaaxu rasulilaay. <laughs> ci <laughs> yaakaar naa ni waxtaan bi neex na macha allah ñu ngi jël taawam waaye bu doon loo xamante ni rek maman bëgg nga ko bokk ak sénégalais wala nga partagé ko ak sénégalais te ñëwuma ci ak yow ci question yi lan lay doon. xanaa di wax euh, nañuy xam ni yàlla xam na xol te xol xam na yàlla. Mm-hmm. nañ leen lu ñu jàppoo takk xol yi mu doon benn. koo gis sa muy sa nit ko jàmm li nga sa bopp yéene ko sa moroom mm-hmm. ñu ngi wax dëkk bi tàng na metti na dëgg la mm-hmm. Sénégal moo naq di gouverner nag waaye nag nañu sant yàlla Macky bu ko fi yàlla jëlee tey tey tey dafiy jóg tey. ku fii indi keneen yàlla na fekk ni mooy ñu gën ci ñun. moom mi fi nekk bu fekkee dafay yàlla daal moo xam. dañuy tàllal loxo daal di ñaan yal na yàlla def jàmm ci réew mi. yàlla nañu am jàmm yàlla nañu nekk jàmm ndox mi yàlla doon ndox mi jàmm ak salaam waaw nay naan nag mbàkke bàllay sa buri mi ñëw eh. ñaane waat ko ndox mi ñoo xam ne ndox mi arrangé wu leen mm-hmm, mm-hmm. di ñaan nag li nag kilifa aada yeeg ñëpp di ñaan ñëpp jàmm mm-hmm. yéen ñëpp jàmm te maa ngi doon balu ak ñëpp doomu aadama yëpp na ma ñëpp baal baal naa ñëpp ndeysaan jërëjëf jërëjëf maman yow ameloo kenn àq suñu yaay ju baax ji waaye nag ñu ngi ñu suñu yi nga xam te sonal nañ la de waaw sët dañ ñëw vacances fu ñu dem yóbbu ma <laughs> man leen fii ngeen may dugal yëpp mosuma fi dugg uh-huh. nekk naa ndakaaru ba léegi mosuma dugg milieu yi ngeen may dugal waaye sant yàlla ma di leen ñaanal yàlla ñu doon mag ñu am ñu am amiin yàlla na leen ko yàlla defaral mama kontaan nañ bu baax a baax ci waxtaan bi nga xamante ne seqoon nañu ko ak moom nii rek la ñu koy defee ak yéen ah, ñi nga xamante ne yéenay bàyyi xel Sénégal Buzz 221 di kontaan bu baax a baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf